alaykoum internet en TV yi ñoo ngi leen di nuyu ci seen émission invité tay nak ñu am comme invité am di Moustapha Faye di ancien international footballeur sénégalais ngir waxtaan ak mom ci CAN 2019 bi war am Égypte du 21 juin au 19 juillet te Sénégal bokk ci 24 équipes ci wara jonganté jongante am di ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci suñu plateau di la bàyyi nga nuyoo ko internet en TV yi internet en TV alaykoum sëñ Khadim ça fait toujours plaisir pour encore def encore émission ak Hann TV di leen remercier ci seen wóolute bi ngeen am ci man ak euh, coxeel bi ngeen am ci man man it ma am ci yéen macha ñaan yàlla seen TV bi seen seen kii TV seen Hann euh, TV bi mën a dëgg-dëgg télé yu bari Inch'Allah. allah mën a comme yeneen télé bon alors Amdi, di ñoo ngi ci veille CAN bi ban jàngat ngay def ci 24 équipes waaw 24 TV xam nga une première nag ñaar dafa am ñaari facteurs yo xam ci une première muy 24 équipes en même temps ñu football été c'est la première fois nga xam ne championnat fay jeex ben jour dootul dute ci wax ne su ma en décembre mën naa ñàkk sama place parce que wala ni wala na. donc tay ji yaakaar naa loolu ñuy wax mokal tari lay doon mooy équipe bu nekk préparé na seen match yi na am ci seen club ñenn ñi moo nombre de match plus que moyen ñenn ñi donc pour ñu ñëw aussi wane seen talent ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi c'est une première moo tax ma wax ni je pense que incha allah j'espère que Coupe d'Afrique li dàq ci Coupe d'Afrique lay doon mooy jour bi koy joué sans benn arrière-pensée toujours mooy li may expliqué mooy la plupart bu nu woowee jour bi décembre prévision du leen neex surtout club européen yi bii mu tombeek loo xamante ni été la ñëpp ñu ngi nekk ci vacances comme mu mel ne Copa America bi donc respect dina gën a am léegi ci football américain par rapport ak euh, les européens mais ci biir 24 équipes yooyu est-ce que mën nga ñu dégager les équipes favorites

bu ñu fàtte ne bi ñu fi ñëw en 2017 personne kenn mënu kenn mësul musée ci ñoom Sénégal bi nga xamante ni ñu ngi collé favori dëkk yi ma la limal yi yëpp ak surprise yi nar a am muy équipe yi nga xam ne ñu ngi doog a ñëw ci Coupe d'Afrique ku mel ni Mauritanie ku mel ni Tanzanie ku mel ni Madagascar yooyu yëpp peut-être ce sont des équipes avec l'euphorie te attention avec équipe yi nga xam ne euphorie la ñuy footballé pour le cas du Sénégal premier en Afrique au classement FIFA ñu bëri observateurs yu bëri jàppee ko favori ba peuple bi si boppam kan bi rek la ñuy xaar coupe bi la ñuy xaar yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw xam nga su fekkoon ne man maa <coughs> yor loolu yor les instances du football de la FIFA man damay wax ne favoritisme boobu ñuy def ci équipe boo xamante ni mosul gagné du ma ko def parce que <coughs> benn daf lay naaguloo ça fait deux ans ñu ñuy collé wéy mais boo xoolee loolu lépp ci ay éliminatoire du ci phase finale éliminatoire yi fii Amara c'était pareil nga ñëwaat encore Zirès il a fait pareil nga ñëwaat encore Alice il a fait pareil donc ci éliminatoire la ñu nommé lan mooy premier de notre de notre de du du du continent. mais tey jii li ma li gënoon li gënoon rafet mooy tey ki mujj jël coupe d'Afrique mu nekk le champion mu nekk le premier de la de de de de de la CAF et de la FIFA. mais ñi ñu koy joxe nii des matchs amicaux nga gagné ko ak ay des matchs éliminatoires nga gagné jox la favori Pour les phases finale la plupart gis nga phase finale depuis ñu ngi depuis 2000, de 2006 en 2017 dix ans après ñu ngi doog a quart de finale. mais loolu wax tey équipe bu favori la ba pare tey jii. Nous avons un yu mhm. corps humain en plus pays organisateur est-ce que avons une pression ci joueurs sénégalais comme objectif rien que la CAN. parce que vous aussi colonne vertébrale de l'équipe Sénégal Nous avons une défense milieu c'est la première fois que nous avons ñu équipe nationale qui ñu ko par force destin mais li Sénégalais man dëgg mooy par force da dem jëli coupe bi bu amul ñu sant ko yàlla bu amee ñu sant ko yàlla mais tey équipe buy dem di ñaax xare lay doon loo xamante ni tey ji équipe bi ñu yor l' équipe capable pour dem xare ji pour jël. mais du nekk pression si ñoom. non je ne pense parce que ñoom ku ci nekk def na ñaari kaan ñi def na ñetti kaan donc mënta nekk pression ci ñoom ñoom tey jii. nekul ne dañuy ñëw pour battre record surtout la génération 2002 wala leneen leneen non non c'est juste pour ñoom ñu def marquer leur empreinte marquer leur empreinte leur empreinte nag mooy jël coupe parce que tey génération 2002 tey foofu ñu fi ñu wax yëpp dem na fa dem na finale dem na demi finale donc tey li ñu ñuy war a def rek mooy ñu fexe ba dem finale pression jour bu buggul pression doo football te pression dafa baax ci joueur day tax nga yëkkati sa niveau boo xoolee fii di nga gis yenn joueurs yu ndaw dañuy wax ne ñoom ñu ko leen critiquer mais nit bu bëggul ko critiquer na dem football en en amateur li ñu wax au niveau c'est tellement relevé et le football football dafa éphémère maanaam football lu gaaw la loo xamante ni doo ci taxaw di calculer naan at bi lii lay def déwén lii lay def déedéet ko juger ci long terme ni nga mën a def rek mooy du jour au jour teewaay teew coupe d'Afrique moo xew jamono ji fexeel ba fi mu nekk nii bokk ci ñiy dem final boo bokkee ci dem final fexeel ba gañe parce que tey ñun erreur bi ñu am ak regret bi ñu am ñun muy la génération 2002 ñaan nu suñu rakk yi di ko am donc moo tax ma wax ne c'est tellement bien c'est de mettre la pression pression boo ko amul doo dem parce que boo demee noonu kese moo loolu mooy da ngay dem pour n'importe quelle équipe mën na la gagner mooy surprise yi ngay ci équipe ndaw mooy 2012 bi bi ñuy dem kenn waxul bu ñu jël coupe jamono amara mais danoo dem rek ñu ne waaw comme def nañ sans faute perdre na benn match te bokkoon ci poule ay Cameroun donc mën nanoo dem coupe d'Afrique pour gagner mën nañu ko def Coupe d'Afrique pour pour Yakar dara mais lan moo ci xew équipe yu musul ñëw ay Coupe d'Afrique ñoo la gagné wala ñoo xamante bi ñu gëjee ñëw Yag. ñooñu ñoo la gagné muy ñetti match yoo xamante ni daanaka c'était l'équipe à battre te tey jamono ji moom laay wax ne bu booy fàgguwul te j'espère que Machallah allah fàggu nañ ci lu mel noonu xam nañ ne bu baax match bu ndaw amatul je pense que match yi nga xam ne Tanzanie nga xam Tanzanie 39 ans ñëw na Coupe d'Afrique Algérie, dans les 10 ans, décennies, sont une bête noire. Nous avons encore euh, Kenya, Yakarna, Ben Yon, ou deux fois. y a eu un revanche à Laïdon, 85, Yakarna, 86, mais pas de Google, et Yakarna, Coupe d'Afrique, 92. Nous avons Kenya bu ñu ñëw dañuy prendre loolu en compte et qui me l'a expliqué ne la Sénégal c'est la l'équipe à battre donc bu ñu taxaw bu ñu taxaw dëgg dëgg dëgg surprise man na man na mën na am ci bu d'Afrique. bon mënuñu bañ a wax ci Aline Cissé parce que gis nañ ngay def ay nga def ay sorti di ko indexé ci récalé bu mu récalé Santy Ngom ngay wax ne day mettre carrière en jeu Santy Ngom. Hmm. est-ce eh, mën nga dikkaat ci loolu. waaw xam nga li ma ci loolu mooy Aliou Aliou moom a gën a xam ne tey nga bokk équipe nationale booy football dans un club européen wala fu mënti doon. Mhm. dafay yokkati sa daraja. équipe nationale c'est très important pour un footballeur nga y a beaucoup ci équipe nationale. donc si vous avez Ngom ba ci 2018 bi ñu koy regalé Fofu noonu boo seetee tey mu mënoon na jox plus valeur valeur moo doon lan gis nga bis bu ko footballoo woon vous match ñaari match wala mu boole woon ko ci groupe bi Ali Jovic du xalaat mukk dem di dem et ça c'est très important Les léegi entraîneurs yi xam nañ en équipe nationale c'est le haut niveau bis bo am bu ñu jour mu football dañ koy téy parce que tay équipe yëpp dañuy équipe club yi dañuy dañuy soxla ay ay ay ay joueurs international ba nga xam ay jour international plutôt ba nga xam ne daf leen di yokk seen niveau parce que tay bo amé ay sa équipe bo ci amee jour international yow na la leer na tay ji yow xalaat nga ne ñii mënuñu jouer de haut niveau parce que niveau bi nekk ci au national ci équipe nationale nekku ci nekku ci ci dans les championnats ligue loolu moo tax ma wax ne Ngom au moins bo xolé je pense que même 2017 ci yakar nan ko sélectionné won muy jamono 80 euh, euh, coupe d'Afrique ñu recalé ko ñëwaat encore coupe du monde ñu recalé ko mais boko ko encore coupe d'Afrique mais mom lan lay sentir wala njabotom lan la sentir man côté bobu la doon waxee. te côté boobu est-ce que tamit lim am Crépin jaata am Henri Saivet motax mais nga bañ ko bu la néré ne yow ki do ko yóbbu nga bañ ko parce que gis nga ñu recalé l'équipe ci équipe nationale dafay jouer sa carrière fi maanaam mentalement boo taxawul rek mën nga de def carrière te damay wax ne ñu sélectionné la équipe nationale dafa yokk daraja ci sa club boo accès ce club dan lay respecter. Respecter, boo xam ah c'est un niveau international loolu dafa baax ci footballeur mais comme nous mu demee nii ci moom franchement xaw ma ko damay wax rek te yàlla tax ndax joueur sénégalais la te bëgg may football Sénégal moo tax mu ñëw football juddoowu fi xañ na papa moi sénégalais mais li mu bëggoon moo ñëw football si change bobu nak dëgg-dëgg moom tàllal la loxom pour ñu dimbali ko. Uh-huh. mais après Aliou Cissé moko moko dimbali wu dimbaliwul ci côté bobu parce que sélectionné juste pré-sélection lolu du sélection ñu dess ci Aliou Cissé ba légui parce que ñu bari dañ koy taxer comme étant un manager autoritaire si je peux le dire ainsi yow mi nga xamante ne jot nga ko côtoyé en tant que joueur mu nekkoon capitaine 2002 seen capitaine peut-être lan nga ñu mëna wax ci moom waaw man de li wax peut-être moi à l'époque c'était C'était un leadership. c'est quelqu'un au moins capitaine moom nga jox c'est normal et il a bien fait en plus. mais par contre Ce qu'il dund ak avec yi man dund ma ak actuellement pour xam lan lay dund j'entends juste dans les journaux wala ma dégg benn booy footballeur bu wax ni lii wala voilà. mais bon moi je pense que c'est des détails le plus important C'est Ali c'est mooy entraîneur te xam na li muy def fait une erreur sénégalais yi dinañ ko ko wax su defee lu baax gars yi tàcc ko parce que comme je l'ai expliqué, il y avait un, grand monsieur, Malik Soussouri, dans le années, avant la Coupe du Monde, c'est un, entraîneur apprenti. Lolo, pour savoir ce que Malik Sidi wax, dañuy japp né daf ko indexé ci manam daf ko kiwul dal. Uh-huh. Mais c'était juste pour les sénégalais xamné sen une critique yi mën nañ ko tiir tout ci mom par rapport parce que c'est un entraîneur apprenti day jank uh-huh. Parce que bo xolé il a raison elage Malik parce que lui Cissé

moom mu dem ci kaw di superviser militant muy wàcc di wax ak ñom Aliou Cissé yor bi donc loolu on peut pas dire que c'était entraîneur machin donc le plus important moy tey jii moom moo yor équipe nationale su défé lu baax gars dañuy applaudir su fekkee ne tey jii juum na ci ben nangam c'est vrai que les gens ils vont pas le pardonner parce que tay il a tout pour réussir voilà ñu wax ci brazard capitaine bi parce que indi na fi ay polémique yu ndaw jamono ji wessu est-ce que yow d'accord nga ñu bayiko ak Cheikhou Kouyaté mais mais déjà faites qu'il faut jouer moi dafa wax ne lan la wax tant que tant que mu ci groupe ci groupe bi mooy groupe bi wala mu jouer. groupe bi mooy nekk capitaine. mooy nekk capitaine ah bon lolo après lolo c'est son son choix c'est l'entraîneur. Mm-hmm. mais te dama wax né tay boko ko peut-être ñu né poli day def polémique wala nangam mais normalement gis nañ ko fi ci coupe du monde bi. nga jox ko encore ku ñu wax Koulibaly man nako parce que ce sont des titulaires indiscutables. Mm-hmm ku yati ci dire wax ne un ji qui sénégalais mën ko ci biir équipe amical contre Nigeria, gann gay la ko jox. waaw loolu gi kon légui mom Aliou légui waxam fofu fan lay yow sa dernier match football Tu woko ko sax en défense ci ce liste. suba ndax bu ko football ndax dina wax ne ñun tay légui lan la ki lan la ñi di wax tay les ku Alfred ku melni Pan ku melni mais nous, ni ñoom ñëpp ñu nekk militaire. Cheikh Ndoye non mais qui sax ci mais CV. Henri CV voilà Henri CV ak ñooñu ak euh, Krépin Diatta ñoom qu'est-ce qu'ils vont dire yow yaa dit jël kii comme en tant que défenseur nga ne tey mooy ce capitaine te yow l'air na ne football ko match en défense parce que am nga déjà un défenseur de métier muy Koulibaly un défenseur de métier pas Abdou Cissé un défenseur ça, euh, sax c'est pas un défenseur de métier c'est un milieu de terrain aussi nga jël ñaari milieu terrain nga nga transformé leen yóbbu leen en défense même bu fekkee ne club lu clubam la luy mais Salif Sané la aligné contre Nigéria waaw moom la aligné mais damay wax ne bu doon logique te logique dama yàpp ne dafa amul ci suufu bul hmm. mais dama wax ne man mënu jël man en tant qu'entraîneur sama opinion ma am défenseur de métier ma dem di ko di football football loo quelqu'un koo xamante daf may dépanner en en défense Salif Sané il a été milieu terrain bi muy footballeur bi ñu ko wàccee défenseur yàggul donc on l'avait fait pour mu dépanner

lan fay nekkee moom mooy gisoo ko Côte d'Ivoire bi ñu ko mujj jël fii. waa ji dafa dem jëli ay séréje ak ay nangam gaa yoo xamante ni ay bàyyi nga xam ne daanaka nekkuñu ci. dañu dem jël gaa yi di dóor dal suba ba ngoon ne dara du romb mais loolu tey mën nan ko mën nan ko am mais boo boo jëlee tey jii que ay architecte nga teg leen ci mais xuloo ma fay bari rek mais kenn du fa rëdd lu la mën a wax ngay jël architecte jël des maçons jël ay ouvrier nga mën a tabax tabax bu baax. boole lépp. voilà Sénégal Tanzanie mooy nekk première sortie Lions yi. Sadio Mané sera forfait ban jàngat nga am ci lolu. Lolu déjà bo sétane ben émission mo def fan yii passé maa ko don ñaan manan su don sama opinion. Mhm. man damay wax Aliou Cissé nako ko football le premier match. parce que comme mu ngi nekkoon ci ki reprendre encore ak gars yi. Mhm. na ko football parce que bo xolé match y a plus de match maintenant qu'avant 24 équipes la. Mhm. tu joues plus de match. lan lan don def bu lan doon def bu njëkk te loolu jigul ma waxat ko encore bu fekkee né peut-être li mën na ag fofu ba ci ñom ñu mën ñu déglu. Aliou Cissé ah. surtout. lii jigul Sénégal maanaam nga fubal deux matchs ak sa équipe qualifié benn match bi ci des nga ne qualifié nga xaaral nga def beneen équipe bi gis nga loolu temps muy dagg muy rythme bële boo seetloo toujours muy quart de finale wala dernier match dañuy toog dañuy ñibbi kon dafa dafa mel ni sa souhait mu mujjee nekk réalité question un peu indiscrète ndax bëri na ñu lay taxé naan la da bëri looy critiquer joueurs yi rawatina Sadio Mané te gis nañ ci cérémonie remise ballon d'or africain bi nga lëng ko am looy miir miire ak moom lan nga doon wax ak moom foofu. non moom ci wàllu boppam moo ne woon daf ma bëgg a gis. Mhm. man j'étais dans le plateau. ma ñëw wàcc dem ci remise des trophées ma sétane. ma yéegaat ci kaw bi may yéewaat ci suuf le jour le jour yëpp ne ma Sadio Mané mu ngi lay laisser. man je remercie ce gamin parce que c'est quelqu'un de très discipliné. parce que bi ma nee dañ may wër man xamoon naa ne li may peut-être xeer yeeg ñoom seen mais ça, xeer. Sadio Mané en fait il y a 4 5 ans je ñu commencé J'étais le premier à dire que c'est le meilleur joueur que le Sénégal a jamais eu. de toutes les générations. Je ne woon pas ci ci gannaaw di wax la ma heureusement que il est il a été très intelligent mooy dafa xam lan mooy critique bu positif ak politique euh, euh, critique bu négatif donc moom ci côté bu mu positif ben critique lay def Sadio Mané té lool la ko wax pendant neuf mois xaw ma six mois té xamoon naa ballon d'or bi non lay démé parce que liko ko manqué mo équipe nationale. dama ko wax né ko vitesse waxuma ko ba légui ni mi footballé la vitesse qu'il utilise vitesse bu ñu utiliser Liverpool. Ah. utiliser wu ko Sénégal vitesse la ko critiquer vitesse. sénégalais yépp mën ma dégg musuma wax lénen ci mom ludul vitesse na vitesse bu ñu utiliser Liverpool na ko utiliser fi bu ko utiliser parce que mom Sadio Mané lu ko xamé moy force de pénétration boobu muy def.

te yow bu Amo benn match de référence en équipe nationale. loolu moo tax ma wax ne man mënu ma nangu tey su ma seetaanee booy bii mu war def carrière am bii te ba pare tey kenn dimbali ko équipe nationale tey ñun ñëpp on est des des fautifs wala des hypocrites. moo tax bu ma demee ba xam loolu laa ne kii ëllëg lu mu mën a quoi qu'il en soit. dina taxaw ëllëg mu ne kii man waxoon na ma dëgg. boo bañee ku la critiquer nag moom wax toujours il faut arrêter le foot parce que tey quand tu es une activité ñun ñi dañoo critiquer ba ñuy bëgg a c'était nos critiques positif Dans les critiques internet mais on avait tout tout temps le journal dañuy ñu nangam nangam journal lire surtout quand on est en activité mon encore encore un conseil Vous voulez lay c'est ah. réponses, réponse terrain apparition VAR pour la première fois si Kanbi bi day apparaître en quart de finale lan nga ci wax. mais lu baax la parce que boo xoolee tey suñu demi finale 2006 ñu nag ñu nag ñu nag euh, kële nan la tuddee ci ñu nag Égypte bii. Ah. mais VAR bu fa amoon da lay leer ne Égypte dañ koy gagné. Ah. parce que tey penalty bi ñu am penalty bi ñu am bu dimanche bi. c' était ah. sûr que mënoon nañ dem prolongation ak ñoom. wala ñu dem ci bi mais VAR bi lu parce que tay jii lu ñoom lu ñu mënul gis ñu gis leen ñu gis ko arbitre gis ñun lu gisul décision c'est vrai ci ñoom lay mais mënuñu gis lu télé gisul donc c'est très important VAR bi bi mu peut-être am nous ñu arrangé wu ñi ci mais ñi gagné c'est sûr que da arrangé Nous, ci nous émission bi ñu la nga je vous remercie encore ci confiance bi ma encore toujours avec ici nous tamit xajal à chaque fois donc ma leen di ñaanal rek seen télévision bi ñu dem ba ñu koy dégg fépp incha allah. mu nekkoon Amdy Moustapha Faye ancien international footballeur sénégalais moom la ñu dalaloon tey ci suñu plateau l'invité fii ci Hann TV dégg ngeen tontu yu am solo yi mu indi ñoo ngi koy jaajëfal di jaajëfal tamit internet Hann TV Xaadim Fay la woon ci présentation bi Papa Bounama Diop ci technique bi ñu leen di jox dig daje ci beneen émission ak beneen numéro ak beneen invité. TV merci d'ici là portez-vous bien